use nu sek yow ñëpp ràññi nañ la fii fi france am nga jaar-jaar ci politique mais borom xam-xam nga aussi yow bi affaire ousmane sonko bi commencé dégg nañu nga ci def ay live mais lenn la ñu mën a jàpp ci sa wax bi comme ñeneen sénégalais aussi que affaire bi complot la lan nga ñu mën a wax ba ñu yaakaar ni complot la maa ngi lay sant di la doon di rafetlu sa taxawaay ci liggéey bu am solo bi nga def euh, jëmale ko ci Sénégal saa su ne ci actualité bi ak xew ci réew mi yëpp nga def ci yitte di ci def say investigation di interroger les concernés mm-hmm. lépp ngir bëgg dëgg ak euh, gindi askan bi euh, taxaw. Sénégal lépp ci moom la ñuy wax daanaka léegi mat Ousmane Sonko ne da ko doon yakkataan da ko doon sàmm siif ak ci fetal am nekk loo xam ne bi mu amee dafa jaaxal ñu bare bare loolu nu mu mën a nekkee alors après loolu def na plainte dem déposé ko ci ki nga xam ne mooy procureur de la république euh, au niveau asafurla déposé ko au niveau de la section de la recherche mhm. ñu def seen ay enquête bi enquête yi génnee malheureusement pour xawma ñan mais heureusement pour tout le monde enquête yi dafa génn ci place publique bi ñëpp am ko bi ñu ko amee bi ñu ko xoolee da ngay xam ne lii ca dëgg-dëgg bu ñu ci sukkandikoo mënul nek lo xam ne jar na ñuy continuer instruction bi manam di continuer enquête bi ak képp ci dem ay tribunal waxantuma la di teggi ay malade kiraay yu député boo xam ne kiraay bi dafa am solo hmm. ndax tax législateur bi prévoir tout c'est pour effectivement ne pas exposer le député par rapport à l'exécutif mais aussi par rapport à judiciaire hmm. principe bi nga xam ne lal séparation des pouvoirs yi dafa jël pouvoir bi diviser ko en trois kenn ku nekk mo am mun na jox ju protéger la ba keneen ki du mëna dal ci sa kaw loolu dafa mel dafa nasax ci affaire bi hmm. ñu gis aussi que deuxième élément non seulement la faiblesse bi nekk ci élément yi nekk ci enquête bi da fay wone ne li am na lu xew deuxième chose bi mooy la personne bi nga xam ne moom moo accusé muy Adji Sarr ni ñu ko jëlee tëj ko nëbb ko ay mbokkam tol ko ay moyens protéger ko di ko susute te ki ko def mooy état loolu mënuñu xam lu mu doon loolu dafay nuru aussi que état dafa am xëy na intérêt ci li xew pour bëgg a faagaagal ki nga xam ne moom mooy adversaire politique bu redoutable ñetteelu élément bi mooy bi ko RFI interrogé li mu wax mooy moom dégg nga moom du tàbbi ci yu mel nii et puis bon souhaité ki nga xam ne mooy pire adversaire mhm. pire adversaire donc le mot pire foofu dafa am lu muy tekki dafa am lu muy insinuer par rapport à l'état d'esprit de l'homme qui parle le subconscient de Macky Sall moo génn wax foofu mooy la haine l'idée qui se fait de Ousmane Sonko que c'est son pire ennemi donc loolu dafay firnde encore que ni effectivement lii ça peut être un complot quatrième élément mooy ni ñu dessaisir la section de recherche ci enquête bi nga xam ne demul jusqu'à terme enquête bi jeexul ñu parax paraxee ko nangu ko ci ñoom ñëw dégg ko benn juge d'instruction loolu jubluwaay bi mooy nañu fexe ba léegi euh, information yi bu mu am fuite parce que section de recherche dépend de la gendarmerie te ñoom bu ñuy defee enquête dañuy informer seen hiérarchie donc toute la gendarmerie la hiérarchie ñoom dañuy am information yépp à temps mm-hmm pour un un un problème nous ñu défendre le corps de la gendarmerie comme quoi ah non ça ne s'est pas passé comme ça donc c'est un autre aussi pour mm-hmm. sécuriser donc le travail des gendarmes Parce mm-hmm. que sachant qu'effectivement, vous qu'effectivement, vous bàyyee vous vous continuer au niveau de la section de la recherche hiérarchie bi l'information, jot information yi te enquête bi vers des personnes de haute personnalité dans l'État su ko nangoo jox ko de la DIC c'est pareil que de la police la hiérarchie sera informée léegi mu couper le pont entre la hiérarchie de la gendarmerie la hiérarchie de la police à travers la DIC bi nga xam ne possibilité pour orienter encore enquête mu ñëw c'est-à-dire circonscrire l'enquête maintenant au niveau de l'instruction via le juge bi nga xam ne moom la gën am ci confiance parce que li mu bëgg kooku mën na ko defoon muy le juge Mamadou Seck du 8e cabinet loolu c'est une façon de mettre l'affaire maintenant à huis clos mm-hmm. li koy firnde encore cinquième élément ci li may wax mooy bi ñu defee ay instruction bi ñu ne dañuy entendre Adji Sarr ils l'ont fait à huis clos la commission ad hoc une réunion à huis clos la plénière de l'assemblée à huis clos quand tout est huis clos ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on cache mm-hmm. yooyu yëpp c'est des éléments qui prouvent

loolu lépp dañuy gis ne effectivement message bi nga xam ne Dior Diagne envoyé na ko avocat wu Ousmane Sonko ci erreur la ko envoyé ci njuumte te mu bëgguñ ko envoyé Antoine Diome mooy Ousmane Sonko kat dañ koy def comme ni ñu defoon DSK bu ministre Soskal à New York mhm. mhm. ko parce que buñ ko tëjee réew mi dina takk kon buñu ko tëjagul mais nañ taxal dara yàqal ko ba nga xam ne dootul jot dara parce que buñ ko laalee réew mi dina tàkk message boobu mu bëggoon ko envoyé ministre de l'intérieur bi nga xam ne mooy jëkkëram ci suuf. bu mhm. mooy dem ci avocat Ousmane Sonko bi ba ñoom ñu constaté ko ak ay huissier yëpp te dinañ ko versé ci dossier bi su fekkee procès bu juste bu équitable am na yëpp dina leer dossier bi dafa vide mën naa indi encore ay yeneen éléments yu baree baree bari yoo xam ne. Mhm. dafay wan ne complot d'état mais pour bañ ma gudd ma joxaat la kàddu gi. lii mooy li nga xam ne moom laa amoon ci njaal benn. mais mais beneen question bi mooy euh, normalement affaire bi euh, Ousmane Sonko war war na nangu affaire bi leer parce que pour mu leer il faut mu dem justice mais euh, pourquoi euh, doute yi bari ci justice sénégalaise ci affaire bi. waaw loolu li ko waral du tey loolu moo mag Ousmane Sonko moo ko mag bu ñu histoire de Mamadou Dia en 62 biñ koy commande biñ koy biñ ngi benn faux coup d'état convoqué l'assemblée pour que ñu war a def benn motion de censure pour daaneel le gouvernement de Mamadou Dia qui était donc le chef du gouvernement à l'époque moom moo nekkoon président bi am doole Senghor nekk chef de l'État Mamadou Dia nekk. ba xam nga le chef du gouvernement. Mhm. police bi ak armée bi yëpp nekk ci ay dogalam. Senghor bi mu demee ba bëgg ko faagaagal xam ne état bi dëgg-dëgg doole bi ni ngi ci loxo Mamadou Dia daf ko tuumaal ne ko yow dag ma bëgg coup d'état dag ma bëgg rey dag ma bëgg wàcce. ànd ci ak Lamine président de l' nationale à l' ñu jël député yi comme ñi mu amee tey corrompre leen nax leen ñoom ñëpp ñu la ñuy wote daaneel gouvernement Mamadou Dia Mamadou Dia jël armée bi teg ko ci Mhm. convoqué wu leen assemblée Lamine Gueye convoqué leen këram ñu def fa benn séance plénière voté daaneel gouvernement Mamadou Dia Senghor jàppale Mamadou Dia ne Mamadou Dia def ko leen coup d'état loola amoon démb moo am tey kon lii yàgg na Sénégal te loolu lépp dafay wane ne système mu état état bi ñu am Sénégal dafa jël doole bi yëpp jox ko benn nit muy président de la république Senghor ko fi installé woon ba mu faagaagale Mamadou Dia dafa def benn régime présidentiel bu fort mooy nguur goo xam ne ki jot nekk ci bopp mi moo yor bi yëpp neex rey ku neex buum ku neex buum bi loola bi muy dem fi la ko bàyyi Abdou Diouf ñëw fekk fi loolu bàyyi ko fi Abdoulaye Wade ñëw am tuuti amélioration mais moom tamit profité na ci ndax am na ñëw jàpp tëj génne Macky Sall ñëw moom delluwaat fa Senghor commencé woon 1962 foofu la commencé moom foofu la yóbbuwaat Sénégal mooy lan. séparation ah, des pouvoirs dafa dafa delloo démocratie Sénégal ci ginnaaw daal loolu nga bëgg a wax. mooy njëriñ yi nga xam ne góorgóorlu yi nga xam ne def nañ ko pour jéem a fexe ba suñu démocratie bi gën baax gën baax depuis 1962 ba 2001 liñ si amoon yépp ak yi le le consensus de Kéba en 93 avec les élections présidentielles yi nga xam ne ci la maître Babacar Sèye génne woon àdduna ñu assassiné ko ci ay résultats yi ñu a prononcé le juge Kéba démissionné yooyu yëpp ñuy amélioré di pousse ba ñu am alternance en 2000 Abdou Diouf dem coow am alternance en 2012 Ablaye Wade dem job amul Macky Sall dafa jël loolu lépp mu tëxuñ ko sànni ko ci àll ba dellu ci Senghor 1962 yóbbu Sénégal ci dictature yóbbu Sénégal ci assujetti maanaam def ay esclaves ay jaam justice bi def esclaves ay jaam assemblée nationale bi muy ñaari pouvoir yi nga xam ne ñoom ñoo waroon tey taxaw jaamaarloo ak pouvoir exécutif bi nga xam ne moom la Macky Sall yore mais dafa ñëw jël alal ji jël doole ji corrompre magistrat yi corrompre député yi corrompre ñëpp doole bi yëpp nekk ci moom ñu nekk na ci période mbas couvre-feu coronavirus bu gën a yokk ay dooleem gën a jël pouvoir yi jël ay puissance nga xam ne mën na wax ni ñu lekk léegi mën na wax bu kenn lekk ban heure ngay génn ban heure ngay tëdd c'est un super président un roi boo xam ne mu ngi commencé di imposer dictature

Europe diaspora bi ñëpp moom la ñuy waxtaane communauté internationale bi mais ñi nga xam ne ñooy mbootaayu xeet yi. ñii liggéey ñuy ne dafa am benn opposant bu siif benn xale bu jigéen wala dañuy ne complot la ñuy wax souvent. ñoom li wax mooy complot la parce que li tax ñoom ñooy ne complot la mooy PV yi xam nga enquête su ma sa am. Hmm. li ñuy wax ci enquête bi du feeñ mais bii yoon dafa mel na ñoom seen affaire bi yàlla daf ci deful jàmm parce que enquête yi ci boppam moo génn. te enquête bi ñi doon def enquête bi nga xam ne dañu nangu enquête bi ci ñoom muy section de recherche gendarmerie ñoom xam ñoom ci nañu nangu dossier bi ci ñoom ñoom ci seen bopp dañu leen toroxal te ñoom xam nañ ne lii coup monté la parce que ki doon def enquête bi ci gendarmerie bi commandant bi kooku ku jub la xam na bu baax lan mooy dëgg ak lan mooy fen moo tax PV yi nekk ci ñu PV yi nekk ci biir noonu la yi nekk ci communauté internationale bi partenaires yi les au niveau donc des attachés militaires yi nekk seen consulat yi ak ambassades yi ba yónnee ko ci seen chancellerie yi ba ñoom xam nañ ne lii di c'est un coup monté et puis c'est une bassesse ñu ngi jéem a conseiller Macky Sall mais Macky Sall dafa dëgër bopp parce que bëggul Ousmane Sonko réccu ko parce que agenda du élection moo tax parce que 2024 élection du am Macky Sall moom préparé bu def élection li muy préparé 2024 mooy année bi nga xam ne moom lañu war a commencé jaay pétrole ak gaz bi nekk Sénégal te moom xalaatu benn yoon bu déewul fii foofu muy nekk di élection di campagne dëkk bi nekk ñuy coow mu mën na wàcc daanu yooyu yëpp xalaatu ko donc dafay pousse élection yi élection du am 2024 mais 2024 date bu la at la boo xam ne dafa am importance ci histoire Sénégal parce que mooy at bi nga xam ne ci lañ njëkk a commencé jaay pétrole jaay gaz le Sénégal nekk un pays pétrodollar muy commencé dugg ci biir Sénégal moo tax xalaatul mën na rey Sénégal yëpp mais du dem donc dafa am ay enjeux enjeux yi sax du ay élection parce que moom li mu bëgg mooy rey opposants yëpp su paree ci opposants yi ci presse la jëm yéen journalistes yi ak journalistes yi nga xam ne xàmme nañ leen ñi nga xam ne ñoom c'est des corrompus parce que c'est pas tout le monde il y a des journalistes professionnels mais il y a une presse boo xam ne aujourd'hui soumise presse boo xam ne ci lekk Macky Sall lay lekk ci boolu mais mais sans sans pour autant Ousseynou nga parce que to bu bugguma nga ñu tooñ sans pour autant nga wax ay tour mais est-ce que yow yaakaar nga ni tey dafa am ay journalistes yoo xam ni ay journalistes de service lañu de euh, ci affaire bi ah bu baax a baax boo bëggee tam ma tudd tur. su na ci du jeex. Hmm. man amuma problème man mën naa leen tudd mais comme bëggoo ma tudd loolu du moom moo yore propagande presse moo yore xaalis moom mooy distribuer mooy def.

boo xoolee affaire bi soog a commencé ñoom dañu amoon benn posture benn taxawaay mooy suñu yoon nekku ci affaire privé la ñu ñaari nit suñu yoon nekku loolu moo nekkoon seen posture boo seetloo ci tout de match c'était comme ça au départ. Hmm. mais ñu dem ba ci biir affaire bi commencé jël beneen tournure jël beneen direction beneen doxalin parce que Ousmane Sonko bi ñu tuuma gën na wax mi ngi communiqué ñu ànd ak Ousmane Sonko gëm na deful lii ñu koy défendre ñu ngi joxe ay argument nekk ci plateau télévision yi ñëpp di gën di wax ñoom ñu ne seen yoon nekku ci. dem nañ ba ci biir ñu gis ne opinion askan wi dañuy commencé gëm Ousmane Sonko ne li ñu koy tuumaal du dëgg parce que Ousmane Sonko mooy communiqué Adji Sarr communiqué wul ñoom ñu nekk ci pouvoir bi dañu taxaw ne bu ci kenn wax dañu joxe ay consigne ne bu a wax ne ñoom nekkuñu ci ginnaaw loolu moo tax ñu joxe consigne bi mais consigne boobu ñu joxe bu ci kenn wax daf leen coûté cher parce que ñoom dañu bàyyi commune plateau yi bàyyi Ousmane Sonko muy communiqué ak ñi ànd ak moom dund defuñu ko communication boobu dem ba am doole ba askan wi commencé gëm ne Ousmane Sonko bi dañ ko bëgg a faagaagal dañ ko bëgg a jaay doole mais li ñu koy teg dëgg du yoon te loolu ko gën a conforté mooy le rapport d'enquête yi génn section de recherche raquette d'enquête yooyu dafa dafa dimbale Ousmane Sonko bi ñu ko fiwtee génne ko ñëpp gis ko Ousmane Sonko di communiqué ay ñeneen di communiqué état bi ñu gis na ñu ngi bëgg a dugg ci pax bi affaire baa ngi bëgg a garaaw boo xoolee depuis une semaine léegi dañu changé tactique dañu changé stratégique léegi ministres yi ñun ñëpp dañu léegi c' est la deuxième vague c' est le plan B maintenant il faut aller sur le plateau il faut défendre le projet nañu dem nday ndax bu ñu deful kat askan wi dañuy dal ci suñu kaw te jamono bi may wax ak yow guerre opinion bi mooy fexe ba askan wi ànd ak yow Ousmane Sonko def ko gagné parce que ñoom dañu accuser une semaine de retard ci kaw ñun suñu yoon nekku ci affaire ñaari privé la nañ ko lijjanti stratégie boobu ñu adopté woon dafa màbb doxul daf leen gën a cuuxal

képp sa morom doole dóor loolu mooy saafara bi man loolu laa gis comme solution amul beneen sax amul waxtaan boo jubóo tout ça tuuma am na tuuma bi mooy accusation hmm. ñi ëpp ci Sénégalais yi gëm nañ ne lii amul kii accusé kenn gisagu ko kenn xamul fu mu nekk kenn mësu ko gis làq dañ ko jox ko ay policier di ko tëj kenn xamul fu mu nekk mbokkam papaam mënu ko gis muy Adji Sarr bala nga mën a régler affaire bi déjà il faut nga gis Adji Sarr waa Jamra abbé xaw ma nan Seck Jacques Seck ak ñoom dagaloon nañu ne dañu bëgg a waxtaan pour ñu régler affaire bi dem nañ gis Ousmane Sonko mais léegi ñoom def nañu avis de recherche depuis tey ñu ne dañuy wër Adji Sarr képp ko xam fu Adji Sarr nekk nañ ko ko wax ñoom ñu dem seeti ko pour wax ak moom parce que bu ñu ko bëggee régler ci affaire u sénégalais il faut que ñu mën a wax ak ñaari parti ndax Adji Sarr kenn mënu ko gis kan moo ko nëbb kan moo ko jënd kan moo am intérêt bu jënd Adji Sarr Macky Sall ak Antoine Diome ministre de l'intérieur kon affaire bi ñaari bopp ñoo taxaw bopp Macky Sall ak bopp Ousmane Sonko il faut que am benn bopp duñ ci dagg sénégalais yi nag ñoom ñoo nekk ci digg ñoom ñoo war a tànn ñoom ñoo war a xam nan la ñu bëgg su fekkente ne lii Macky Sall yi def dañ ci ànd dañ ànd ak Macky Sall mu dagg bopp Ousmane Sonko su fekkee li Ousmane Sonko wax jàpp nañ ne moo am dëgg dañu war a jàpp ànd ak Ousmane Sonko mu dagg bopp Macky Sall juge bi mooy Sénégalais yi parce que Sénégalais yi gëmatuñu justice justice amul ci réew mi wax naa la ko depuis Mamadou Dia ak Senghor wax naa la ko depuis Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade wax naa wax naa Sall ak Karim Wade Sall Khalifa Sall Macky Abdoulaye Balde Ousmane Ngom levée immunité parlementaire ba sànq ci suba man ak yow gisagoo fu ñu convoqué Abdoulaye Balde gisagoo fu ñu convoqué Ousmane Ngom gisagoo fu ñu convoqué nga xam ne mooy Omar Sall pire ou meilleur mieux dañ ko def ministre Omar Sall jox ko ndomba tànk ñu tenk ji immunité am. Hmm. war ko àttee ne ne fa sàcc àll réew mi ñu jaaree fa def ko ministre parce que lan fekk si na Macky Sall ci politique Abdoulaye Balde nangu na ànd ak Macky Sall Ousmane Ngom nangu na ànd ak Macky Sall amatuñu lu ñuy tiit soo bañee comme Ousmane Sonko taxaw da ngay ñëw par force. boo ko deful dugale ci kaso bi Idrissa Seck dañ ko xoqatal mu ànd ak Macky Sall bu ko deful woon tey jii lii dal Ousmane Sonko moom lañ koy def dañ koy dugal ci kaso bi suñ paree jublu ci Ousmane Sonko lii mooy li am ci réew mi moo tax askanu Sénégal gëmuñu justice mm-hmm. Ousmane wi ñoo nar a taxaw ànd ak moom xeex ñu rey ñu wala ñu rey leen amatul beneen solution confrontation mooy dajale dóorante ko ëpp sa morom dóor ba fu ba fu mu yem neex loolu loolu moo fi sos jërëjëf jërëjëf Ousseynou ah ma rappelé ni